maa la ko wax de. te booba def na un an ci wala deux ans ci yow yoo xam ne. ji nga ko fas ji nga loolu ndoy baan kii nee na yokk leen ci ak jànk bi lay liggéeyal di la tong. xëy suba rek tong la mere la. parce que am jànk yoo xamante ni gis nga maman. waaw wax itam yab la. Mm-hmm. gis nga jànk man de yaa ma gënal Mimi Traoré bi nga xam ne moom <laughs> ma wax maman macha allah nga am ak ñoom. dëgg la parce que nit ki mën na la miin mën ngeen xaritoo te du la yeb. ak ay dëgg. parce que tey am na loo gis am frontière am na jànk yoo xamante ne tey lu ne mën nañ ko wax seen patron sañ nañoo tongu seen patron lu ne sañ nañ ko def seen patron parce que xëj na am na foo xamante ne àgg nañ fa ak patron bi dëgg man tey ak loo ma jege-jege ku nekk fi ma bëgg nga yem ma foofu nga may yem mm-hmm. il faut ñu xam yan limite moo war a am ci relation bu mu mën a doon mm-hmm. yow ak ki ngay liggéeyal yow ak ki ngay liggéeyloo yow ak sa jëkkër yow ak sa doom àdduna lépp dañ koy délimiter nga xam fu nga koy teg man boo ma tongee ci dëgg sama yoon nekku ci en tout cas sama liggéey def ko comme ni mu waree mm-hmm. leer na ma ni un homme et conscience defuma la waxuma la yéenewuma la dara luy safaan boo ma tongee du ma ko ligganti mhm. tant que sama liggéey yaa ngi koy def ci yoon aw ma ci benn problème boo xëyee ne ma bu la neexee nañ yem ci bonjour madame bonjour diw aw ma ci problème soo wàccee au revoir madame ma ne la au revoir diw suba boo xëyee ñëw boo toogee ba bëgg a bàyyi nga ne ma damay bàyyi ma yëkkat sa xaalis jox la ku nekk dem jumuma u yaa ngi may tong te defuma la waxuma la aw ma ci problème mais xam nga lu may bañ man duggante ak jànk sekk ak jànk lépp lu war a tax tey bu wax jotee nga ne benn mu ne la fukk après bu boobaa itamit yow yaay tooñ sa bopp maanaam diggante yi nañu xool nu nuy àndee dañ koy limité dañuy xool nu nuy àndee mënul ñàkk loolu macha allah mm-hmm. très bien mu mel ni nag léegi itam ñuy ñëw liggéey si dañuy nekk xale dem liggéeyal xale waaw parce que ay couple bees yi ndaw ñëw am. <laughs> ka nga xam ne day ñëw dikk yàlla def mu war la liggéeyal en général yéenay tolloo. Oh. mi ngee wax ci biir xelam euh, kii nga xam ne de maa bu fekkee ne dafa dafa weddi yàlla rek te toppul maanaam li nga xam ne moom la yàlla dogal. Oh. dafa yomb lool nga ni kii nga xam ne maa ngi koy xëysil di ko gontul maaka mag. Oh. kii nga xam ne moom moo fi ne munoon naa nekk à sa place nga gis keneen koo xam ne day bàyyi ay doomam dëkk ba ñëw Dakar yàlla def ko mu war la liggéeyal moom muy garder sa ay doom. léeg-léeg su xamul liggéeyam trop dana ne man ma bàyyi sama doom ya fële sànni leen fële ñëw fii di seet doomu jàmbur na xam ni dafa ñëw seet doomu jàmbur waaye weer bu dee dañ koy fay. Oh, c'est pas gratuit waaw kañ coro. waaw c'est pas c'est pas c'est pas gratuit. mooy hmm. li baan doon wax sànq euh, foog ñu am. loo mën a def dañ ci def amour. dëgg il est important nga xam l'amour de son métier. c'est important benn bi mooy une conscience hmm. dañ dañu koy jàng. dafay valable pour même jànk yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci suñu biir kër yi parce que tey moom papaan mi bëgg na li muy yóbbul njabootam mu doon lu barkeel donc yow mi nga xam ne ci kër di liggéey naam junni lañ lay fay junni boobu fexeel mu baax sa bëri le barkeel le moom moo ko gën donc yow lépp looy gagné boo ko mënee justifié mu wóor la ni liggéey nga ko ci heure def nga ko ni mu waree wàcc nga ko ci heure boo koy fayeeku da koy fayeeku avec beaucoup de fierté hmm. tey jii yi di toog fii di liggéey mais tey di ngeen di ngeen def seen liggéey li ngeen war a def ba nga xamante ne bu weer deewee sa téléphone sonné message nga xool muy banque bi boo fay dem di retirer ji sa xaalis doo fa dem ak gaañ SMS SMS voilà dama dama gis <laughs> dama gént ndoy ban ñu yokkal ko ci ay millions amiin ah, <laughs> ma xëy comporte ko donc donc mi ngi noonu liy ku nekk ci ñun hmm? am sa conscience professionnelle boo tëddee nga nelaw naam ñetti junni lañ lay fay ci kër gi hmm, hmm. li nga war a def def ko doomu jàmbur yarloowu la bul yar dëgg la dóorloowu la bul dóor boo gisee ci moom loo xamante ne nii xaw na am nu mu mel waxtaan ci ak yaayam avec la manière parce que am na ñoo xam ne luñ la bëgg bëgg boo laalee seen doom ñu dañ ci yow donc toi tu n'es pas venu pour yar doomam daf la dénk doomam ko doomam ci ni mu waree parce que loolu moo tax ñun ñu lay fay. mais téye bi tam kenn du ci mën a détaché. que euh, kii la mais am na ñoo euh, xam te ne dinañ la ma laa la wax joxal mu lekk laa wax sang laa la wax sel ko leen pour ngeen jiboo très bien Thioro merci merci te yar boobu nga wax wuute du yuuxoog euh, yuuxoog dóor xale da nga ko yuuxu dóor ko loo ko ba tey la mu warta def waaye da ngay téye loxoom wan ko ne lii nga waratul def mhm. bu laajee corriger légèrement nga corriger ko bu ko defee ba ëllëgee mu xam ne lii la warul laal waaye xale def la nga tëb rek yuuxu ko yooyu yëpp daal façon la boo xam ne ñu ngi koy def ci biir kër yi ñu war ci mhm. bàyyi xel doy baan euh, bismillah surtout soo day def lu ñuy nëbbu sa jëkkër liggéeyi comme dëgg ni ko xale bi waxee ci reportage bi mm. soo leen liggéey jee ngeen seen jëkkër yi suñu liggéeyee ngeen jël seen xaritu kooba yi indi ci man sañ naa ne Abdoul Aziz mu delluwaat ca gone googu ñu dégluwaat ko moom itam jukkeem bi bare woon na de xaw ma fu mu koy bàccee ba di ko déggu ko mais maa ko dégg ak jàmm xale boobu koy toj dëkk bi macha allah waa Mado itam Valentin bi léegi hmm. attends léegi bu dee Saint moom ku mu coupleel moom gone ga xanaa plateau ba lañ ko dénk. ab abaa la couple. waaw abaa li ma bëgg a wax Aziz Samb du fi xaj. Mm-hmm. ne daal dafa am benn Saint-Valentin. bon koy waxee mu def Saint-Valentin mu ne moom du ca exemple ndax couple <laughs> gul grand Aziz loolu mooy nuyoo bi ma la nuyoo ñu dem directement à la régie. très bien mu mel ni njaayeen bi Abdoul Aziz dafa dafa yeewoogul macha allah ñu ngeen nuyu bu baax a baax El Hadj Mbaye ca Ndar macha allah démb nu ngi ko gis mu jël micro wax kaddu yi am solo dafa am ñoo xam ne dañ leen war a waxloo rek. Mhm. am na beneen jigéen boo xam ne moom nee na Ndoye mi ngi France. Mhm. def na fa 26 ans. 16 ans yi dafa liggéey kër ak dafa liggéey ci ay tubaab waaye itam nañu nangu ne. tubaab bi bokkul ak africain bi ne tubaab bu lay téye euh, dana xam luy sa àq xam luy mm. sa yelleef yow itam nga mokkal ko waaye nag nee na nañu waxante dëgg liggéeyal africain rawatina nag Sénégal lu jafe la ba noppi nañu jéem a yokk li nga xam ne moom lañuy ñuy fay jànk tuuti na ah nañ ko wax ndoy baan tuuti na ah toujours tey bu ma gañee juróom benn junni nañu waxante dëgg ma waxaale ak yow nga may fay juróom benn junni waa juróom benn junni lu mu donte nag ku ci nekk lan lay jox dafay ñaaree da ngay tolloog say bëgg-bëgg day tolloog loolu. Oh. waaye léegi bëgg-bëgg ku ne wees na fa nga ne. dëgg la nañ ci bàyyi xel lillahi wa rasul ñu yokk ko tuuti di fay. jànk da ngay yor kër. ah nañ ko yokk nañ ko yokk. jànk boo xam ne waxu na waxuma nag ñu ne nañ ko yokk ña nga xam ne ñoom seen yo bos baaxoon na ba noppi di xoolee patron bi bëtu yokkal ma déedéet àdduna du noonu. Mhm. mooy ban bisimilah. c'est que c'est que nag saa dépend ci liggéey bi. waa jànk boo xam day xëy di fobere ba ngoon jot. Oh. di fóot di togg àndul. di fóor raxas toilette yi raxas toilette loolu mi ngi am di to ah, ah, waaw kër yi loolu lu ne yàlla nañ la wàccee sa kër ak jàmm xam ne lépp am loolu jànk yi nag nañ waxante di exploitation moo fi am de waaw bëri na ci waaw dañ leen di exploité de waaw waxtaan wax dëgg ca laa mais nag fii ak ñoom organisé wuñu ci seen biir mm. parce que su lu waay di bañ keneen ay ñëw nangu nangu ko su fekkoon organisé woon nañu am benn kuréel gu mag wala ay kuréel yu bari yoo xam ni mm. fa la ñuy jëlee jànk wala ñu tere nii léegi amul kenn amatul droit jël jànk jànq ci mbedd sooy jël jànq dafa am foo koy jëlee comme ñoom madame Sadio yi ñu jox la kayit ga ñu ay kayitu leer loolu loolu mën nañ mën nañ ko comprendre mm. mais li xale bi jigéen bi doon wax keroog tey soo leen liggéeyee jee ngeen woo seen xaritu kooba yi ci biir kër yi ngeen di wax lu ñor ak ñu ñoru mm. jànq ma nekk ca waañ bu di leen dégg mm. ngeen di wax yoo xam ne da ngeen koy nëbb jànq ba mën na ci mooy maanaam kële ni ka kaa ñu te xeer jogge na ciw xeer par jànq ba xamal na la loo xam ni bëggoo ko ko yëg mm. mu nekk ci kër gi nag su fee jànq boo xamul àdduna mm-hmm. soo ma defee dara ma wax mm-hmm. maanaam jànq bi am na lum la xamal loo xam ne bëggoo bëggoo bëggoo bëggoo kenn bëggoo xam ko mm. lool tam day indi beneen bi may jànq yi nga xam ne dañ nekk ci restaurant yi mm. restaurant yi. na nga ci boole nag jànq yi léeg-léeg itam ñu mel ni Evatra euh, doo xamal sax nit ki dara. Mm-hmm. waaye jóge ca moom mere ko rek. Mm-hmm. sosol ko mun na xaaduna facette yëpp am. sosol ko dem ci ay ñi ko jege ñi mu xuloo loon wala comme ñun jigéen matuñu. que mm-hmm. mu mës a jëw sax jëw bu gàtt nga guddal. que mu mës a mébét ne nangam nga wax fa loo xam ne kenn santu la ko moo tax lu nit di wax ndoy baan la na ci seet digganteem ak boromam. nekkoon rek nga xar nga xar àdduna. Eh, waaw wax naa la fii dégg mm. leen ma. Mm. Hmm. da nga yor ñaari jabar. waa bokkuñu kër. Hmm. jubóowuñu. Oh. <laughs> jël seen jabar yi ca gën a peegar doon fa am corombaar dem jël benn jànq ni ko demal kër diw luñ la fay jëlal. Oh. su la fayee trente mille nangu weer wi dee naa la ci tegal trente mille soixante mille. Hmm. liggéey si liggéey normal mais dee ma jox ay information suulal ma lii ca kër ga. dugalal ma lii ca ànd ba su guddi jotee nga woo ko whatsapp tonton bi eski na lu mu reere noo leen tëddee ñoom ñaar ñu ni mel seen diggante yow jànq baa ngi ci biir kër gi di informer sa wujj jël nga jànq boo xam ne sa wujj moo ko yabal ci biir kër gi te xamoo ci dara ngay mbeleleli rek di dugg ko génn moo tax bu leen nangu ay par exemple sama benn xarit moo mu indil jànq sax xarit sax bu nopp sa jëkkër mën na laa indil jànq ci biir kër gi sax copine bëgg nopp sa jëkkër indi la jànq ci biir kër gi janq bi nekk ci biir kër di liggéey fekk dañ la koo sexal xamoo ci dara nga mel ni nga tëxët rek mel ni biisu jaay di ngee leem di leem leemal waaw ndekete ki ci biir kër gi dafa ñëw mission te xamoo ci dara mu yàgg fa lool ñu lay sunguf di la reen di dugal ay affaire doo comprendre yaag sa jëkkër bis bu ne ngeen di xuloo bis bu ne ngeen ni tongoo sa jëkkër di taxawal ci mbedd doo comprendre. Mm-hmm. xam nga information yi di génn xam nga. nit kaa ngi lay fréquenté jànq bi su ñëwee ci nekkee ci kër bi sa xarit bi ñëw ci biir kër gi ñoom ñaar du ñu mel ni ñu xamantewul fekk yow ñu ngi lay jàmpaaka ginnaaw te xamoo ko xarit dina ko def sa wujj dina dina ko def say njëkkee mën nañ koo def so goro sa yaayu jëkkër sax mën na laa ideel jànq jànq ba dafa ñëw mission donc yéen jigéen ñi te waaye dégg seen. maanaam maanaam goro. waaw mën nga am goro. parce que malheureusement on est dans une société. hypocrite yàlla na yàlla na yàlla oui oui oui coro. mais yàlla na yàlla bi dafa garaaw et puis moom may ñu ñu nga gis nga ànd boo gis. Euh, coro ànd ak ku mate. dafa mm. baax koo mm. xam ne dafa fees place am am personnalité am dignité lu waay di xëccoo te xëccoowoo loolu rek wallaay yàq nga sa xëccoo